Je suis euh, man euh, vice-président du conseil départemental Tamba mais aussi responsable politique de euh, l'autorité une autorité de l'aviation civile. deuxième jour dialogue avec le président Macky Sall les acteurs politiques c'est date élection yi bon ban jàngat nga Oui, am. waaw xanaa sant ci parce que depuis ñi ngi fi woon gis travaux ni mu de 16 h jusqu'à presque 22 h jàpp naa ne sensibilité wu Sénégal yëpp ñoo fi daje woon muy autorité religieuse muy autorité politique autorité coutumière euh, journaliste ñëpp fi daje woon maanaam euh, c'était le Sénégal en miniature ñu waxtaan président jël temps déglu ñëpp ku nekk mu jox la parole groupe bu nekk mu jox la parole parti politique yi euh, candidats yi nga xam ne dañu leen recalé woon ak candidat di spolier ñëpp mu jox euh, li ci nañu ko le dernier mot revient à euh, l'assemblée générale qui va certainement à partir d'aujourd'hui à travers des conclusions du ko président Macky Sall mu jël décision yi soumettre au conseil constitutionnel pour ñu mën a jàpp date pour dem ci élection mais comme nous ko Olof Ndiaye di waxee li ñëpp wax dëgg parce que président Macky Sall est rare en Afrique nga gis président boo xam ne bii def na douze ans ci nguur gi di waaj boo gisee euh, dem bi métti rupture bi métti c'est parce que fi mu toll doomu aada yi moom moo tax. xam nga booy wax dañu naan peut-être da nga ànd ak moom oui dañu ànd ak moom te ñun bi ñu ànd ak moom nekkuñu woon ak moom PDS mais ñun 2009 la ñëw ñu xam ban genre nit lañu ànd ak moom liggéey boobu ba tey amuñ ci benn euh, déception amuñu ci lenn lu ñu rëccu mais boo seetloo démb ñi ci jot a wax ñëpp. nit ñi maanaam président Macky Sall ah, mandaa jeex na mais sénégalais doyul wuñ ci moom loolu mooy wax ji léegi nag man li ma jàpp mooy. ñun li ñu wax rek le dernier mot revient au président Macky Sall ñun en tout cas Benno Bokk yakkar képp ko xamné ki Macky Sall président Macky Sall tànn na la né yow yaay suñu candidat comme nim ko défé ci Amadou Ba dañ koy japp ñëpp nak mobiliser wu pour que buñu démé ci élection yi ñu mën ci am victoire. mais lima gis démb rek comme dama koy waxé Olof Ndiaye né lu ñëpp wax moy dëgg le dernier mot revient à l'Assemblée mais le président Macky Sall aura un mot à dire par rapport à l'avenir de ça dama japp né prenons le temps nécessaire de bien préparer ces élections Nous avons date bu baax Nous les coïncider avec les fêtes religieuses, coïncider les fêtes religieuses nous éviter aussi parce que man lii ba koy de na Si on wax nag ñi mais dama veux nit da ngay 2022 nous dañ ko battre campagne ci Nous, ñun ñu dëkk monde rural nous xam pour ñu campagne am ci localité yu nous ne fa pas oto boo mënti yor munoo fa dem parce que àll bi day tëju deuxièmement une campagne électorale durant l'hiver. xam nga lan lay créer population yi dañuy abandonné seen i tool te ñoom ils n'ont que trois mois at bi yëpp ñetti wër lañ am pour bay mané nañu waxtaan li waxtan waxtaan koy indi ñu jël date bi nga xamné mo gën comme ni ko président waxé démb paramètre yëpp buñ ko jëlé teg ñu jël ben fourchette bo xamné dinañ ci mëna battre campagne dem ci élection pour que buñ ci démé vraiment du am presque une contestation wala une buy am aussi contestation yu minime le second point c'est le comportement des responsables de Benno Bokoyakar. je lance un appel à l'ensemble des responsables et autorités de Benno Bokoyakar. 2009 2008 xamante nañu suñu biir ah suñu biir tay buñu ñu fi peut-être amna ño xamné ni peut-être pouvoir bañu am may na ñu am ndomba tank am doolé nañu taxaw tay ñu xol demb avant tay di ñew lepp lu leen président Macky Sall jox comme orientation ñu taxaw ci buñ ko défé candidat bu mu mënta jël ñun buñu ñu mobiliser wu y'a même pas photo moi je l'ai dit avant-hier nañu calculer wat nañu xolat contexte politique gu Sénégal Sénégal ñun Benno Bokk Yaakaar d'accord nañu élection législative euh, au niveau de Dakar amoon nañ fi quelques problèmes mais Dakar lan mo fi xewoon Yewwi dafa and euh, une grande coalition les partisans de Sonko les partisans de Karim Wade motax déjà nombre de députés ñu am ko mais tay ci tay élection yu jëm ni ñoo ñëpp ku ci candidat sa Amadou candidat il milite à Dakar lu mu dé, Dakar le jeu se fera et il y day am ballottage au niveau de Dakar Si nous jógee nag fii ci yeneen région Sénégal à part Jigenshor ak Touba ban localité ngay y a Benno Bokk plus de 60 au Sénégal fii xamante nañu kon nañu ko préparer ñu dem ci mais le Benno Bokk est largement majoritaire dans ce pays te buñ ci Inch'Allah, il day am victoire. donc mais appel à l'unité xam nga lu tax nous nekk ci nous waxuñu demuñu nous. kenn xamul fu ñu far il faut qu'il se prononce ñu xam une position fan la position bi benn rek la war Moi, doon mooy président Macky Sall doon ñun ñëpp suñu cadre. quand même dans la vie il faut être il faut il faut être reconnaissant nit ki bo ande ak moom ngeen def fukki at ak ñaar mu yëkkati teraanga jox la ba mu la koy jox dafa bàyyi ay millions sénégalais ja gënoo leen leen mu la jox la ko Lo fa mën a am rek sa la mais nak bu demee ba ëllëg muy waaj na lay dem c'est pas parce que dans deux mois, le président Maxel va quitter euh, l'espace politique, que les gens doivent rester des traîtres ou bien en tout cas non fidèles à ces à, propositions. Je pense que ce n'est pas honnête de loolu yaakaar ne le waru ci taxaw moo lancer tous les responsables de Benno ñu mobiliser comme une seule équipe Ben Ben homme ñu jéem taxaw boo élection